sebi kotan xex bi lu ko waral moy li ñuy wax terre daf fi jaar xar suñu rew ñaar xar suñu dekk way ñaar bam ko xare ñaar mu am ño xam dañu dañ fi wara jóge mu laal ay kër mu laal ay famille ay famille traditionnelle manam ay famille suñu ne famille traditionnelle mo famille yi nga xam ne ñooñu fii la seen maam sosoo seen i baay seen sët seen dom lépp bu mu ex suñu tey mais loolu su naré am état bi daf leen wara indemniser manam daf leen war a ndàmp ndàmp ci yoon boo xam ne nañ dem ba yëg ci seen bopp ndàmp si yoon boo xam ne nañ dem ba kontaan su defee loolu ba pare mu fay leen suuf si ak fay leen lu ñu tabax waaye fii dañoo gis benn benn ñaawte fii ci Sébikotane ndaxte euh, TER bi njëkkul jaar Sébikotane TER bi dafa am fu mu tàmbalee moom mooy première phase fii ñun ñooy mujjantel bi mais dañoo xool ni suñu mbok yi première phase ñoom luñ dañ fay nañ leen suuf.

nan lañuy perté moy manam dañ leen di yëkëti ci biir dëkk bi yëkëti leen ci booru télé bi état bi yobul leen ci biir all bi kenn xamul fu nan lañ koy tuddé fo xamni sax du région de Dakar mais région de Thiès la état fa la fa la bëgg a recaser ñooñu mmh. te en ce moment là ñoom duñu am prime d'accompagnement duñu am prime de vulnérabilité duñu am dara donc tay suñu xex base bi lool la que affaire na am traitement égal apex na bayyi di xoqatal nit yi apex na bayyi di tek nit yi fitna loolu lépp gis nañ ko ci conciliation bi loolu yëpp gis nañ ko té vraiment ñoo koy nakarlu té APEX amna suñu suñu yaay yo xam dañoo dem APEX si xoqatal leen fitnal leen ne leen soo leen signéwul da ngeen jël seen avocat ñu signé parce qu'on est avocat day tiit surtout ku jangul loolu yëpp bokk na si lu ñuy dénoncé lu metti est-ce que gis ngeen waa BAD investigation bi wa loolu yëpp wax nañ ko BAD BAD ñëw na fi dañoo porte plainte au niveau de la bat parce qu'on a des représentants amna na ay kuréel yu ñuy toogal ci bitum rew ñoo ñoo ñoo introduire loolu dugal plainte bi wa wa BAD baat ba mu fi ñëwee woo APIX woo ñu ñun ñu toog ñu waxtaan lu mu njëkk a wax APIX dafa nekk yow ni ngeen bëgg a concilier nii baaxul parce que sooy concilier maanaam moy ñaar mooy APIX ak impacté bi mais soo toogee waxtaan war nga xaatim benn kayit boo xam ne day wan ne que kii ngeen toog waxal d'accord na ci lii ak lii mais APIX tey dañuy toog di wax ak moom du xaatim amul xaatim amul dara soo paree mun na la d'accord nga mu d'accord ak yow mun na la jógal signal demal te xamoo loo